les les vendeurs ah, ambulants yi nekk fii. ñu leen di teree jaay ba pare duñu jox beneen place yooyu lan nga xalaat ci loolu. pour man mën na leen aider quoi waaye mën na leen aider am na place yooyu bëri yu fii xam ne am na place kenn def fa dara mën na leen daggal foofu jox leen ñoom ñuy jaay seen wërsëg non non se moo gën dem sàcc moo gën dem defi leneen et puis loolu yëpp sax booy yi daf leen taxul jóg booy lu leen tax a jóg mooy liggéey ñoom dañu jógee Sénégal ngir liggéey nañ leen gaa yi jàppale. gouvernement Catalunya bi fi amul kenn kumuy jappalé jàppale ku dul jeune marocain yi jeune pat aidé quoi ouais, mën na len aidé amna place sit yooyu bëri yu fii xam ne am place kenn def fa dara mën na len daggal fofu jox len ñom ñuy jaay seen wërseuk non non c'est mo gën dem sàcc mo gën dem def lenen et puis lool yëpp sax booy daf len taxul jog boy lu len tax jog moy mooy liggéey ñoom dañu jogé Sénégal ngir liggéey nañ len gaay jappalé gouvernement Catalunya bi fii amul kenn ku muy jàppale ku dul jeune marocain yi jeune pakistan yi yow nit ku ñuul foo romb ñu téye sa poche palpe def la lu kenn xamul ba yow doo xam sax waaye da ngay da nga lay dofloo sax man maa ngi nii dan ma dofloo ñoom ñoo ma dofloo récupérer sama famille xaw ma fu ma jëm récupérer sama job jox ko ay pakistan jox yu kenn xamul kenn mënu fi ak dara man fii dama fi maar seen temps bi seen këyit sax soxlaw ma. raman ñi dama leen mere. billaay nii fii. no estén aquí para vender droga ni para una, no sé, para borracho. No, nosotros vinimos aquí para trabajar y ayudar a nuestra familia en Senegal. No vinimos aquí para vender a la calle, si uno doy una tienda, vender, no, no sé quoi. Pas eh, nga bàyyi no jaay parce que lan nga y amul bande no fi wax fi fi am ñuy ñew pour fighting delu Africa xam nga la dimbale waxuma dara sax ay affaire de hypocrite yi fi am affaire de justice bi ñu fi ñuy tegal ay justice de mentir justice boo xam ne ko xamul nu mu demee est ce xam nga la da ngay dox jàpp sa ñaambur ñu ñëw indi la ay këyit naan la nii la da ngay ñëw nii da ngay ñëw nii te yow yàlla xam na yow xamoo nu mu demee di lay tooñ ba pare di lay yóbbu ci affaire yoo xam ne bàyyi doo xam nu mu dem yooyu noonu bëgg mu dagg suñu gouvernement bi que dëgg ma wax fii seen chef yi dañuy ñëw fii duñu wax ak ñoom Pakistan anglais dañuy wax ak waa Catalogne moo fi ne ni ñëw bitig bu nu bëgg ñu jox leen ko da nga wax carré eh. bu nu bëgg ñu jox leen ñu ngi nii mën nu fi am dara yow da yor sa xaalis sax ñëw bëgg financé Catalogne kenn du la dimbale eh. lu nu jàppale noir yi lan la karaw gu bëre wala karaw gu bëre wala noir wala lan la lépp benn la boo daggee fii day xonq luy génn tubaab boo daggee day xonk ñëpp benn noonu jëm leen ñu dimbale ñu doon benn sinon lii leneen lay indi am faya